alkaali bu ndaw man fekkoon maay juma caam sax du ma sëy moom ndax parce que benn wax ju ñaaw rek nga dégg ah, ba tax na nga daal di may bàyyi fekkoon maay juma caam carrément man du ma sëy ak ki nga xam ne nag moom mooy alkaali ndax lu ko waral tey jii moom dafa waroon dégg wax ji nekk magam wala nekk ki nga xam ne moom moo ko waroon gën a jege pour mu ñoom ñaar ñu daal di créer benn complexe boo xam ne ëllëg si biir képp ko waxatee wax jooju sax ñoom dinañ xam fan lañ koy waxee ak fu ñu ko dul waxee waaye alkaali moom moo dégg wax jooju bu ndaw daal di indi li nga xam ne nag moom mooy euh, fiit bu métti kon sama dindi ki nga xam ne mooy Juba Caam su demoon ba sëyee ki nga xam ne nag moom mooy alkaali ak leneen su ko dalee si biir muy nattu muy jafe-jafe muy bànneex ak yooyu mun na am mu daal di daw rek li nga xam ne mooy responsabilité te loolu nag dafa bëri ci li nga xam ne nag moom mooy ay yenn gu yenn góor yi nañ ma baal la sama mbokku góor yi waaye nag yenn moom day neex rek ñu mën a ànd ak yow su neexul tamit après ñu daal dem te loolu nag nekkul loo xam ne euh, lu góor wala euh, comportement we si jëm foofu na parce que ki nga xam ne moom mooy alkaali nii bëggoon na ki nga xam ne nag moom mooy juma càmm ba am lu mu formé waaye gis nga nu mu ko yàqee ci li nga xam ne moom mooy wax ju sew fekkee ki nga xam ne sax moom mooy Juba Caam juddoowul ci li nga xam ne moom mooy buumu say waaye lool noonu lan la yàq ak ñoom ñaar seen diggante parce que tey jii nii fekkoon bu Juba Caam moo moom moo doon dogal lool noonu du am ci diggante ki nga xam ne mooy alkaali bu mag ak ki nga xam ne moom mooy Daba Caam moo tax yenn saa yi góor ni la la jege jàpp ni moom dalaa bëgg waaye fekk ni moom ah, bëggu la dafa am loo xam ni la bëgg si yow te li muy bëgg si yow loolu noonu yëpp su ko gisub si yow rek daal dinay dem jël li nga xam ne moom mooy ay bagages nag ba lii daal di feeñ si euh, commencement bi bocc ma ci am xam ki xam ne moom mooy euh, maam bu góor kan la ko bëgg a may euh, moom mooy kan na parce que tey jii nii fekkee yow dañ doon ne kii juddoo si buumu sëy rek nga daal di daw say responsabilité ne man dootu dootuma marié ndax sa waxu yaay kon sa wadine yow soo ko yoroon sa yaay soo ne fase ko tey da nga koy fasa tey jërë ngeen jëf yéen ñu safoo di siiw seen bi saa su nekk ñu leen indi ay chroniques yoo xam ne te ànd ak jamono di dëppook ci li nga xam ne moom mooy série bi jërë ngeen jëf